la daa fuloo kóole voilà gars lii moo tax ma bëgg yëgal doomu sénégalais yi ne ñu ngi def erreur bu catastrophique toujours ñu nelaw looñu Ousmane Sonko jarul xeex Ousmane Sonko jarul xeex évidemment Ousmane Sonko jarul xeex Ousmane Tunkara jarul xeex Ablaye Sambu jarul xeex Demba Sambu jarul xeex waaye xam nga lu jar xeex Sénégal te Sénégal boobu ci la Ousmane Sonko bokk te Sénégal boobu ci la ñu Ousmane Sonko yee bu du loon Ousmane Sonko man mii di wax ak du ma xam Sénégal pétrole ak gazam fu mu toll bu du loon Ousmane Sonko solution man du ma xam lan mooy solution pour ñun ñu génn ci nguuta gi ñu nekk ci Sénégal ndax man ne naa leen man signé naa bu yàgg pare ci senegal man pare woon naa ci senegal bu yàgg soxlawu ma fa dara nee naa leen même bu Ousmane Sonko ñëwee ci bopp nguur gi man du ma dëkk Sénégal non non non man yéen laay xeexal pour ngeen nekk ci jàmm mais même bu Ousmane Sonko nekkoon ci bopp nguur man lu ma dem dëkki Sénégal je vous dis ça que déjà man li ma bëgg muy sama passe-temps muy sama ay moto sama moto bi ma yor sama moto routière bi ma yor mënul daw ci seen yoon yi parce que yéen seen yoon yëpp ay suuf la ay rëq-rëq ay xarang daanu dee moo fa am te ñun suñu tali yi démb par exemple tawal naa quatre heures cinq heures de temps jóge New York ñëw ba Washington sama moto laa war casque baa ngi ne yéen a koy gis sama moto bu yànj laa war nekk ci tali bu nooy nepp di ci daal amuma benn problème ba yegg si donc sénégalais yi nañu jóg xam lu tax ñuy xeex xeex bii yàgg naa leen wax ne c'est le xeex bii du dagg bu mu njaam rek mais suqali Sénégal la jële ko ci ndóol ba faw benn groupe bandi ñoo dajaloo partager milliardu Sénégal yi bokk ci DG euh, bokk ci général Moussa Fall bokk ci Macky Sall bokk ci Maïssa bokk ci Antoine Diome bokk ci euh, Ismaïla Madior ñoom ñëpp bandi yi bokk ci procureur bokk ci kii boo limee délinquant Sénégal yi yëpp magistrat juge amin magistrat euh, procureur procureur ah ministre de l'intérieur ministre de la justice dama bëgg ma jàngal sénégalais yi dara rek ngeen wax ma ci àddina laa la wax àddina ndax yéen mas ngeen koo gis man loolu laa toog démb jàngat ubbi livre xool xoolaat ubbi xool xoolaat ba tombe ci benn vidéo Baara Gaye Baara Gaye maire député maire Baara Gaye fàtte naa euh, quartier euh, ville bu mu nekk yëmbal je ne sais pas je ne sais pas Baara daal xam ngeen mu PDS dama ko déglu assemblée nationale ma ne maa xal macha allah yaa xayti xanaa nit ñemee wax dëgg xam na luy dëgg mais seetlu leen dara ci Sénégal li ci Ousmane Sonko rek la ma see xew dans l'histoire du Sénégal ñu jàpp nit ci information parce que juge bu la jàppee day ubbi information judiciaire yëmbal voilà yëmbal juge bu jàppee nit dañuy ubbi information judiciaire maanaam def ay enquête bu ñu defee enquête ba enquête bi tëj ñu jël ko jébbal ko chambre criminelle bu dee am na luñ la toppee bu dee amul luñ la toppee ñu def ko sans suite wala ak yeneen yi ñuy def ñu setal la nga dem <clears throat> Bara Gaye dafa ne dama koy wax nag mu leeram ni mu ko waxee dafa leer donc du ma jël crédit bi mu ne mais yéen man Bara Gaye jàpp ngeen ma ubbil ma information six mois gisu leen dara ngeen bàyyi ma ma dem jàpp Karim Wade ubbil ko information ngeen ne gis ngeen dara atte ko teg ko après d'accord li ci topp ñun ñëpp gis nañ ko di dissoudre leen PDS de waaye da ngeen génnee xaw ma benn euh, euh, kii jël ko def ko euh, kii électorat maanaam radier ko des listes électorales ngeen def même chose ak Khalifa Sall mais léegi Ousmane Sonko mi nga xam ne jàpp ngeen ubbi information gisagu leen dara atteegu leen defu leen dara ngeen ne dissoudre nañu parti politique yéen même nit ñi ngeen ne wala aussi génne nañ ko ci liste électorale yéen loo leen ragal Ousmane Sonko qu'est-ce que da ngeen ragal ne dafa yee àdduna bi ba mu ëpp da ngeen ragal ne Ousmane Sonko yee àdduna bi yee boo xam ne bu demee élection ak yéen y aura pas débat loolu ngeen ragal. yéen Ousmane Sonko salaamaaleykum maaleykum salaam jàpp ngeen d'accord vous avez jàpp ngeen te ji leen waaye déedéet jàpp nañu léegi non dissoudre nañu parti bi oh non non non raje nañ ko ci liste parce que ñoom li ñu ragal mooy jàpp nañu Ousmane Sonko nitu Ousmane Sonko bi important na importance boo xam ne nee nañu buñ ko jàppee rek loolu du tee ba léegi doolem bi daf fiy nekk ndax xaritam yi bari nañu benn nit a koy jël rek ne ko kaay jiite sama parti te bu ko jiitee day nekk président. ñu ne donc xam nga lu ñuy def donc léegi dañ koy raje ci listu électorale yi loolu tamit def ngeen ko ñu may leen ko pas léegi non ngeen ne dissoudre ngeen partem ngeen ne raje ngeen ko ci liste électorale yi léegi ba léegi nag ngeen di acharné wu ci bakkanu doomu jàmbur bi il est dans vos bu ma dégloo jabaram bu baax ce que j'ai compris parce que du ma dof nag junj doy na boroom xel am na foo xam ne du fa yegg mais nit ku nekk réanimation jabar ji nee na lal bi mu nekkoon ci beneen néeg bële bañ ko fa jëlee indi ko réanimation ba léegi ci lal boobu lañ ko fekk wax dafa laaj dégg-dégg réanimation lal yi dafay ànd ak matériel total bi lay sauver maanaam lal bi kit machine yëpp yiñ ci branché pour teg la ko fii branché la ko fépp donc bu nekkee ci lal bale ce qui veut dire que ñoom même les soins médicaux yi nécessaires bu ñu yóbboon nit réanimation war la koo forcer ñu ko ko def donc ñoom jàpp nañ rek ne Ousmane Sonko moom il faut ñu jël bakkanam à tout prix Alassane Ouattara def na ko Euh, IBK def na ko Mali Alpha Condé moom defe naa réewul réewul opposant mi bàyyi na leen seetlu dalam mi ngi dund ba léegi di wiri wiri mais naa fexe lépp lu ma man manit ma def ko ak Ousmane Sonko léegi bu ñëwee ñu ne ah en tout cas ñun xamuñu de ah, vraiment moom moo naanul moo lekkul donc lu ko dal moom la non non du yombe noonu wax naa leen ko gis nga cent pour cent bii bii di ngeen ko gis lu bari je suis cent pour cent engagé je suis cent pour cent patriote je suis cent pour cent sénégalais et je vais continuer ce combat à cent pour cent je suis cent pour cent prêt à tout dama bëgg ngeen xam ko du ma dellu ginnaaw du ma bàyyi te sénégalais yu mel ni man bari nañu xam leen loolu. démb boo ñëwee Washington rek di xam loolu te Macky Sall ñu ngi lay xaar mois de septembre mois de septembre soreetu am na sama frère buy bind c'est Gambia oil rich country we know that the moment we see Macky is the next president of the Gambia and the next president of Guinea-Bissau we know that all those countries are rich in natural resources so Gambians you need to start watching Barrow his relationship with Macky Sall. will take all the oil and gas in Gambia as well and sell it to the white man and benefit from it and benefit Barrow in it And then the Gambian people are going to continue being poor and hungry. And that's the same thing they're going to try to do in Guinea-Bissau. In Mauritania, they cannot do that because those people have kicked them out already. Those people have already draw the border. They let Macky Sall take his and they take theirs. Pour ngeen xam rek sama mbokku Gambien